jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen nuñ koy defee saa ne mbokk yi lépp lu nga xamante ni bëgg ngeen ko seen mbégte rek mooy suñu bànneex yéen a ñu waxoon nañ leen dem seetali seen sampion sampion boobu tey lañ ñëw seet ko waaye mbokk kooku doomu Kayaar la doomu Grand Yoff la waaye doomi réew mi la barki démb dafa bëre combat bu mag stade Iba Mar Diop ñàkk combat bi mbokk yi ñu ñëw fi tey seetaan gis ko ni lu xewal lan moo waral gëj a gis gi dañ ko daan gis ci làmb simple waaye gisaguñ ko ñu buggoon dugg waxtaanee loolu yëpp ci wasaare làmb ñun la ak yéen sëñ Bas borom mbég mektaar mi ñu dugg ci biir. génn na. njangeen ngeen jëf mbokk yi kon niñ leen ko waxee ci biti rek kon noonu la ñuy fas yéene wan leen ki nga xamante ne mooy suñu invité tey fii ci wasaare làmb ñëw ñu bëgg a waxtaan ak moom ci làmb ndax gannaaw deux mille 2017 ba tey 2019 lay doog a bëre benn komba ñàkk ko 2017 mu bëre ci ñaari komba am ci ndam kon dañuy waxtaan ak moom ci làmb ak li koy jëmale kanam ak ci moom ci lan la nekk depuis bi mu amee ci defetam moom ak ki nga xamante ne mooy Serigne Ndiaye 2 bu Fass li bi doon maa ngi lay nuyu. waaw baa ji ñu ngi lay fay bu baax. aussi tamit di leen sant bu baax a baax parce que lii mooy wan ni le maam yéen a doxal làmb te mbër bu ñàkkee tamit dañ ko war a mën a introsé ñu ay mbokkam xam ci lu mu nekk ñun nag début bi ñàkk ba tey ñu ngi si nekk si li ñu war a nekk mosuñoo bàyyi ndax parce que làmb mooy suñu métier làmb lañ bëgg tamit aussi si ay ndam lañ toog yu bari yàlla doon ko may si anam bu rafet ñuy sant di kontaan sama mbokk di kontaan ñu ma doon daan tamit seen mbokk xam nga dina naqarlu kon tamit bu ñu jógee si làmp ñëw tey ñàkk dañuy santaat yàlla bu baax defaruwaat fépp foo xamante ni foofu moo taxoon ñu ñàkk ñu defaruwaat fataat foofu yëpp te bàyyiwul daal bàyyiwul daal bàyyi. balaa ñuy ñëw ci combat bi. mu bëggoon ñu lan moo tax Libidor sa combat jafe. waaw sama combat loolu xëy na ni mu yàlla la daal foog naa ni mbëri aussi tamit booy bëri looy looy compétiteur duñ la xaw di ñeme. waaw vraiment dugg naa si dana am victoire yu bari parce que man la laa mujjee daanu mu jógee si 2013 di bëre ba 2017 ay ndam rek laa tegale. Ah, 2017 kan ak kan nga daan. 2017 maa ngi bëre euh, Pakala Lamsar mujjee bëri ak Mamady Ndiaye. waaw wante boo xoolee tamit làmb mënoo toog ci doo bëre ndax ana balance day fay mbër quoi day fay mbër waaw boo gisee combat bi yaakaar yàgg nañ koy dox tamit xam nga. mujj na ko jël ba tey xam nga ñu toog xam ne ñoo war a bëri ñu bëri daal. ba di si yàlla def daal ñu koy sant bu baax a baax. Mhm. kon bokk année balance bi nga defoon daawaati jéeg bokk na ci li tax ren nga jël combat te fee saison sax nga ko bëri muy fee 2019 sa diggante ak Serigne Ndiaye 2. waaw année balance yooyu nag bokk na li tax ma jël komba bi parce que tamit ñi nga war a bëre normal bëri woon ak man ndax parce ni fii mbër mu ma gën palmarès yombul de ndax foog naa ne mënoo bëre ay at yu bëre ba daan daanu benn yoon xam nga nga raw nga raw nit si combat di ko jël waaye yooyu yëpp làmb ji ni mu rek moo normalul waaye fekkoon làmb ji ni normal la man a samay naataango ñoo waroon a jongante laale. waaye daal comme que ay ndaw lan ngi ci buntu làmb ñàkkuñu dara te incha allahu rabbi dinañ liggéeyal li nga xamante ni pour ñëwaat ci ci course bi pour pour dab suñu morom daal. incha allahu rabi. li mu doon ñaata sorti nga def ñaata combat nga bëre ñaata nga ci am ndam ak ñaata nga. man deux combats laa ñàkk. deux combats ba toll bëri naa douze combats dix victoires deux défaites. kan moo la njëkk daan. man Ndiaga moom njëkk daan 2013. Mm. waaw après ma jógewaat fa bëree sept combats sept victoires. Mm. kon ci ay dynamique victoire yu baax nga toog. yu baax laa toog. waaw boole ko ay grand combat xam nga fii làmb ji dafa am ku mu am ndey ku mu amul ndey parce que ñu ñëpp ay mbër lañ quoi. ndax ku si nekk tey bi nga bi bi nga bi bi nga wax arrêté sa métier làmb moo tax nga arrêté pour làmb dóor bi moo tax. wante comme que làmb simple bi am na avancement boo xamante ne bu rëy la mënoo di toog xam nga di tàllal kenn loxo dañ ciy nekk di compétir ñëw di ko motali sa bëre quoi loolu rek moo tax ñu dugg si ba yàlla dogal suñu tur fu mu egg rek. si bëre simple tamit la gën a laase mm-hmm. xam nga ñu nekk ci nekk bu rafet ñëw tamit di ko boole sut bëre aar noonu lay def daal ba yàlla may ñu ñu jëm si kaw daal. Mm-hmm. Mm-hmm. bëre simple bi ñu la ciy gis mise yu bari nga di ko ci am di ci am ndam yu bëree bëree bëri lan mooy sa secret. waaw sama secret du dara lu dul maanaam def ni samp yooyu def rek di daas daas final daal nekk ci entraînement nekk ci li mu war a ne jox cër làmb daal. loolu la kese du dara su ma jugee si laam wane fulla wane fayda ba lu ma yàlla may ma jël daal. Hmm. Uh-huh. barki démb association des promoteurs dañoo organiser teg mise bi juróomi million tuddee ko le ministre Matar Ba gisuñu fa li te ñu bari ñu ngi la doon séentu lu waral simple bi wàccatoo ci. non simple bi du dara loolu uh, ndogal la rek ndax foog naa damaa bëre ba pare ñu téye sama licence man ku ma xam ne sama laam sama sama sama yaram deretu laam moo ci daw. parce que làmb dama ko bëgg dama ko bëgg dama ko yàgg bëgg depuis bi ma nekkee xale ba tey dama dama si nekk nekk mu rafet nag bëgg ko topp ko kon tey bi ma bëree ba pare ndog dal ma damay sant yàlla bu baax bi bëree pare nekk si jàmm. après gars yi doon bi nag xam nga foog nga def ay ay rajo affaire yooyu noonu xam nga soo ko defee pare xam nga suñu xamee ne lépp sayee daal après xam nga dina la delluwaat sa licence loolu maa nga ci. làmb yu ma rëcc nag xëy na du du sama wërsëg wërsëgu ñu ko war a jël la waaye lii sama wërsëg incha allah nit mënu ko lekk te moo wàcc see dinañ xam ne wàcc si naa incha allah. Euh, CNG de lutte bi ñoo téye sa licence. waaw CNG bi ñoo téye sama licence ndax affaire règlement affaire règlement moom xam nga nan topp yoon bi rek. xam nga bu buñ buñ buñ yërëm kii def nii xam nga loolu moo tax xam nga kon li ñu war a def dañ koy def. def na li war a def lépp te ren demoon pour jëre rajo bi affaire dafa amoon problème incha allah suba wala ginnaaw suba dinañ jéem a defaat pour dem daan fee fan pour di jënti rajo bi quoi jot ko pour yóbbu ko sensee. leeral suñu mbokk internet yi ñuy seetaan mooy boo jëlee boo kaawoo ci làmb da nga war a toog trois mois yoo xamante ni doo bëri léegi CNG bi dafay téye sa licence pour que boo demee bañ apte pour bëre nga mën a ñëwaat pour. waaw course waaw dan la dan la da ngay toog am na kaaw yoo xam da toog bu la bu la médecin bi xoolee xam ne apte nga pour bëre da lay joxaasi dem bëre ji waana moo tax nag ñu ne demal nga dem defi rajo rajo boobu bu la xoolee xam ne yow si dara nekku ci dara nekku ci yow da lay jox si licence bu nee nag dañoo xam ne carrément affaire bi jàpp na la dinga nga mën a toog yooyu diir doo bëre ko te ñun vraiment dara daluñu ah, ñu ngi suñu jàmm baax parce que xëyee la nekkaa suñu entraînement nekkaa suñu am di jàmm xam nga saafoonte ak ñi war a saafoonteel comme am na am na si luñ jógee saafante suñu mbokk comme comme bu namee victoire Mm-hmm. mbokk yi sëñ Bas ma bëggoon nga may ma combat Libidor ak Serigne Ndiaye numéro 2 bu ko defee ñu ñëw waxtaanaat ci làmb ji sëñ Bas ñu dem. arbitre bi sifflé na Serigne tàccu na Serigne Ndiaye féete gauche walla ginnaaw Libidor moom ngeen jàkkaar lool dimanche 22 décembre 2019 Gueye Production stade Iba ak wasaare làmb ngeen ciy am seen xarit ba. jiili kebe surtout alaaji njuga kebe bi ànd ceeg sëñ basiiru borom mbég meeg taar mi ña ngay leetoo ngay demee wet ña ngay demee wet sëriñ njaay ak libidoor ña ngay xoolante ci bët yi sëriñ njaay moo leen won ginnaaw ndaysaan libidoor dagg na leetoo bi bëre na ñaari yoon bëre simple sëriñ njaay kii libidoor moo ko daan ñaar yi ñu daje yëpp ñu daje ci bëre dóor Serigne Ndiaye nee na ko ci bëre dóor ñoom ñaar ñaari mbër yu xamante lañ ah, Serigne Ndiaye cokkaas na ñaari xale yu xamante lañ ñaari xame xale yoo xamante ne ku ne xam na li sa morom di bëree muy Libidor ña ngay xoolante ñoom ñaar ku nekk ngi déglu sa morom. Serigne Ndiaye li mu door na li mu na seere na la pataake bi Serigne Ndiaye ngi dox ci kawam cokkaas na Serigne Ndiaye na demee nañ wet Serigne Ndiaye de li mu door mbokk yi na ngay ci bët Serigne Ndiaye door li mu door ndeysaan li mu door door na li mu làmb jokkaas na dinañ xeex door na ko mu daanu door na ko mu daanu Serigne Ndiaye door na li mu door mu daanu Serigne Ndiaye door na mu daanu Serigne na jooy door na li mu door mu daanu hee làmb jërë ngeen jëf seetaan nga sa combat yaag Serigne Ndiaye numéro 2 keroog bi nga dugg see ci làmb ci dafa am loo indi dama gis ci yow xadar gis gaynde gis esprit gagneur boo xamante ne dafa nekk ci yow lu waraloon loolu. waaw man loolu loolu mu mu mës nekk sama sama vie parce que mu ah, mu dugg see làmb damay jàpp damay am damay am quoi moom lay indi gagné ndax xalaatuma parce que man dama jàpp man daanaan la daanaan gi nekk ci man nag. ar mu duggee ci laam dama koy wane. wante bisu am ak bisu ñàkk du benn li naan booy ñàkk cuuna ngay doon jour boobu noonu dama jàpp ne bisu ñàkk la rek. wante képp ku xool làmba lamb ji nga xam jox naa akam te li ma daj ci làmb ji foog naa ni musuma ko daj ci combat wante daal xëy na yàlla moo dogal loolu dañ koy sante ndax boo bëree pare nekkaat sa jàmm rek doy sant yàlla bu baax ma koy féliciter moom Serigne Ndiaye di ko ñaanal ay ndam ci kanamam xam nga di encourager tamit aussi sama bopp. te xam ne li ma li li ma war lépp mooy ma waat waajalaat sama bopp ak képp koo xamante ni tamit mu ngi ma doon ñaanal na nga xam ne tey laal gën a jàpp ndax nit ki soo koy ñaanal muy am tamit da koy ñaanal mu ñàkk. ñi ma doon jàppale tamit xam nga tey laal leen gën a sant bàyyiwuma kenn waaw Babacar euh, Babacar tamit bu nekk Kayar maa ngi koy bëgg a jàllo jàllo maa ngi koy bëggee bu baax kooku dafa jàpp sama combat bu baax a baax aussi maire Kayar bi tamit jàpp nañ ci waa Kayar ñoom jàpp nañ ci combat bu baax. gaar gépp xam nga waa atu làmb tamit ñoom jàpp nañ ci combat bi axlu làmb ñoo ñëpp jàpp nañ ci combat bi ndax parce que li bi door nitu nit ñi la quoi. Hmm. parce bi ma ñàkkee li ma dégg si appel dama doon victoire sax dégguma ko. Hmm. kon man xam naa ba nit laa war a doon xam naa fi ma war a tegaat sama tànk xam naa li ma war a yokkaat ci làmb. Hmm. te damay wax rek xam nga euh, man ñàkkuma dara. ñàkkuma dara li ñu war a def kay mooy mbër yi nga xamante ne ñoo war a jëlante. nañ jërëntu ñu bëre parce que làmb ji ñu ñoo mën a bëre mu neex waaw. ma sa combat yaak Serigne Ndiaye numéro 2 nan nga bëree làmb ji ba ñàkk ko. waaw làmb ji ni ma ko ni ni ma ni ma ni ma ko làmb ji boo gisee man bëri sax laa bëggoon ndax parce que ku ma xam-xam ne bëri la ma xeex mu ngi ci man. foog naa ni déplacement yi ma def dem dox ratalaat dox ratalaat droite ratalaat droite ma dagg létoo bi ñëwaat si diggéew bi doxaat ratalaat droite daggaat létoo deux fois ñëwaat wante boo gisee loolu deux effectivement laa jël yoo xamante ni dañ ne affaire da gàllaaj affaire xëpp suuf xam nga gàllaaj ak yooyu noonu ñu ndax mu joo effectivement Serigne Ndiaye benn effectivement loolu tamit day wàññi mbër moo tax nu ngu a aneer benn pas génnaat sax pour di jël bu ko defee man ma comme làmb ji mën naa jeex ay cinq avertissement te boobaa supporter dañ nii jëppi ma tax aussi bi ma duggee sa gàddam xeex door ko bi ma roccee koo taxawaat dama ko jige fekk na ma tamit amul na ma côté droite ba bi mu lancé coup man ma wàcci coup bi sama fii la dal boros ma quoi. fekk na man wàcc suuf tamit xam nga wàccee xam nga. si laa demaale quoi ma mu ma quoi. mu ñëw dal sama ko eggale ma. ñu ci bari ñuy seetaan làmb ji yow coup bi dal na. non coup bi moom wax dëgg yàlla man kaawuma benn yoon man bi may daanu suuf maa ngi sandi sama bopp te bi ma paree maa jógal sama bopp en defal samay samay supporter mhm. maa defal sama supporter yi ñi ma àndaloon xamal ni leen làmb la ñàkk ñëw na ñàkk nam neen dem defar juwaat mhm. ku kaawoo du man loolu mhm. kaawoo mu ñàkk nag moo ñëw ko waaw Serigne Ndiaye bi ma ko seetiwee nee na woo na la téléphone lu la wax waaw Serigne Ndiaye woo na ma yëpp papaam moom a njëkk a woo xam nga waxtaanoon ak man encouragé na ma xamal ni ma làmb la rek te làmb moom làmb la rek mun weesu lu dul làmb ndax ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay dañuy wut genn euh, kii la di dix-huit la xam nga bu jeexee jeex na quoi vraiment tamit xam nga loolu rafet na ndax parce que mbëri ma yëpp tamit xam nga mosuñu noo déggante téléphone ñoom xëy na bëri naa ñoom ñàkk naa def na atu bu rafet woo na ma téléphone tamit xam nga dama leen ci xam nga xam ne vraiment kontaan naa ci lool bu baax a baax a baax a baax a baax ndax loolu lu lu sport day boole quoi ndax du ñu ay noonu quoi. waaw tey jii tey tey bu ndajee dañuy bare voilà noonu la demee. te bor la daal bor la boo xamante ni xam nga gëm naa ni dama koy dama koy fay daal. incha allahu rabbi man du ma bàyyi. man ku ma dóor rek incha allah damay fayu te dama war liggéey li tax ma fayu ko te incha allah dinaa ko def. Mhm. bëri ngeen yéen ñaar bi mooy seen ñaata combat deuxième combat. Serigne Ndiaye bëri nañ trois fois. bëri nañ simple deux fois. waaw 2016 dañ bëre ak 2019. 2016 mu demee noonu. 2016 man maa man sookoon lan daje. Mm-hmm. man maa ko bëriloo ba gañe ko par attaque. Mm-hmm. yeah 2019 ñu bëre ma daan ko. moo nekkoon 4 avril. Mm, naa 4 avril 2019 après ñu dajawaat 2019 tamit yàlla may ko ndam sama kaw. Mm-hmm. kon làmb moom ku yàlla àndal fi ne. kenn mënul kenn. nga bëre 2017 ñaari combat 2018 nga def mil balance 2019 presque ci cat gi nga bëre benn combat arène mooy sa diggante yaa ak Serigne Ndiaye nga ñàkk ko 2020 bii ñu toll promoteur yi ñu ngi lay contacter. promoteur yi euh, ñu ngi ko contacter wu ma nag moom dégguma parce que man làmb man damaa ay kilifa rek. Mm-hmm. te ku ne xam li doon xam ne ay làmbam day neex. te làmb ji nu bëree man Serigne Ndiaye góobu làmb melaa na loon de melul noon de non non melaatu ko. parce que bu dee bu dee supporters yi amateurs yi xam nga supporters yi ñëpp ñëw nañ te làmb vraiment da nga koy bëre ñu xam ni làmb am na te jour bi ñu bëree mën a Serigne Ndiaye xam na ni Dakar am na làmb ndax stade ba booba ni ni bëree ba jóge fa stade bi dafa del kon kon ñun nekk nañ mbër yoo xamante nii kon wur noo toog du duñ bëre non du yoon ndax danoo nekk mbër yoo xamante ni danoo bokk ci lamb bokk ci yaakaar làmb ndax ñun nit mun ta daan amul xam nga làmb li si gën neex mooy nga jàppale ni koo xam ne xam nga ni kii am na am na loo xamante ne mu ngi ci moom pour daan ay champion wante li li li problème bi mooy ngay jàpp ay mbër yoo xamante ni yaa leen di jàppale te xam nga ni carrément ñii bu duggee si biir gars yi mu ñu leen daan te te te yenn mbër yi ñi leen war a daan làmb da nga koy tërbu boo xamante ni boo demee ci kaw xam nga doo ci am benn mbetteel làmb ji nag loolu moo ko parce que am na mbër yoo xam vraiment léegi sax mbër yi bëre grand combat motuñoo bëre pro motuñoo bëre grand combat loolu du yoon ndax làmb mënoo bëre ñaari combat nii xam nga boo yoo xamante ne boo noo xoolee ay kilo vingts kilos yi doon bëgg leen a bëre loo grand combat làmb ji maanaam léegi dafa xam nga kenn xamatul lu muy nuru combat day saf combat ñu nekk ñaari mbër yoo xam ne carrément xam ne ni ñii bëri nañ ba ñor ñu jox leen grand ñu bëre ko ñëpp xam ne Sénégal xam na ne wante mbër yi bëre grand combat kan mooy ne xam xam nga loolu tamit du làmb bokkul ci liy defar làmb sax ndax boo jëlee sañ Bas mi boole koog jiili yóbbu ko stade Jom Iba Mar laata grand combat bi di di di arbitre di siffler stade bi vide ñett fay nekk ak yow muy ñeent. loolu bokkul ci loo xamante ne day defar làmb loolu li nga wax noonu message bu am solo bokk na ci loo xamante ni man dama ko seetlu ci mbëru simple yi muy mbëru simple yi dañuy am problème mu combat arène man loolu bokk na ci li ma jaaxal trop trop trop. non gars yi gars yi ñoo gëmul seen bopp rek gars yi dañoo gëmul seen bopp te man foog naa ne ku ne làmb nga làmb nga bëgg opté làmb waroo daw dara làmb ji ba si dawante bi amee làmb ji yàqu amul mbëru simple amul mbëru amul mbëru dafi mbëru simple amu fi boo yi nga gis yëpp danoo nekkoon ci bëre dóor wante bëre door bi saal boobu li mu war a joxe joxewu ko ñoom nag duñ toog di gale yaabe di ñaan di taal ñaan loo xam ne yow mënuñu ñaan comme que entraîné nañ am nañ doole dañuy si bëre bi. di faru di for seen wërsëg loolu moo leen ci dugal yaa ngi dégg waan du dara gars yëpp ay mbiri arène na ndax parce que na tax ñu bàyyi seen métier mooy lem la ko arène moo tax ñu bàyyi du simple bu doon simple la rek am na gars yoo xam dañuy dem di liggéey ñun ñi nga xam dañuy dem géej yi dem géej ñëw boole ak mbapat wante duñ toll defatuñ dara ngir bëre bi yaa ngi dégg loolu moo tax man fii laa nekkoon bëre door moo tax ma jógee fii ñëw fii grand fii xam ba léegi maa fi ñu taxaw ma ñoom taxaw bu ñoom tamit combat bi yëpp xam nga fi laa ko pare nekk ak ñoom. combat bi daa trois mois maa ngi ko doon entraîné. tooguma sama dëkk benn woon. damaa dem hivernal deux mois maa ngi woon côté Mbour nga ngabaru laa nekkoon. jóge fa ñëw Grand Yoff gars aussi taxaw ma taxawaay bu rafet. xam nga ñoom tamit dama leen ne sant bu baax di leen xamante ne xam nga Libidor amul leen loo xamante ne xam nga lu muy sikka doomu aadama ñëpp da leen sant. bàyyiwul kenn di leen xam ne ñoom ñoo ma doon jàppale ma am ndam ñoo ànd ak man tey ma ñàkk bu subaa ñooy ànd ak man ma am ndam. foofu laa ko jàpp te incha allah loolu mooy nekk voilà. loolu bokk na ci loo xamante ne gëm yàlla la bokk ci mbër Libidor fi mu toll nii sa combat kenn nga teg bër kan nga jàpp ni moog Libidor combat bu neex la. Mhm. xam nga làmb ji man moom ñu war a bëre ban na. war a ban na ay mar la ñu ko fi man ak mar la combat bu neex la. mar bu géej mar la man ak moom sama combat ak moom lu waroon yàgg taxaw la. Mhm. voilà ba léegi taxawul man ak moom mënoonoo bëree muy combat boo xam combat boobu ñëpp a ko soxla. Mhm. waaw. Yac Marley lamb ju neex la. waaw arène nationale njërndeem la. waaw lamb neex la moo tax nag xoolal ma xam ne maanaam combat la bu neex am na si yoo xam boo leen tamit dañuy jàpp dara la. waaw da ma war a bëreel nag. maa la laaj ñi ma war a bëreel bari na trop de. waaw ñi war a bëreel bari na trop ndax fi ma nekk ba tey maa nga fa. fa taxaw di xaar. incha allah na yi ñëw ñu bëre ñu war a bëre bari na di leen xaar du ma lim kenn nag du ma lim kenn waaw dama xam combat boobu noonu nekk la combat bu ma yà ma yàggoon bëgg nag ba léegi taxawul moom tamit mu ngoo say dynamique victoire après mu nekk say tolof tolof waaw dama waaw bëgg ñu bëre man ak moom. bëgg nga yàgg sa diggante ak Marley daal. Mhm, sama diggante ak Marley bëgg Marley kan nga bëgg. bu sama diggante ak Marley. am na ñoo xamante ni da xam ne lii combat bu neex la parce que li bi door askan bi dañ laa bëgg ci sa bëre ci sa boo dugg see ñu gis aada gis cosaan lépp loo xamante ne day honoré làmb dañ koy gis ci yow moo tax dañuy bëgg ngay wax combat yoo xam ne ay combat yu neex la. waaw sama com combat yi moom mën naa ni bari na ko mooy li nga wax rek si benn ko côté ni gaa yi man dañu man damay wax avance yoo xamante ni dañ may jox wax ay mbër di moo waxee ay mbër di wax ay mbër gi damay sax toog di découragé na ndax parce lay daw. moo tax daal xam nga. daa weex xam nga moo tax daal nan toog waaw nan toog rek. jàppaat ci yàlla di waajalaat di xam ñu ngi tàllal loxo promoteur yëpp képp ko xam ne dégg nga ñun dina xool ñun suñu combat day neex te bu ñu bëree dina indi supporter yu bari amateurs yi bëgg nañu ñu ngi taxawaat di xool combat yi nga xam moo jaaru pour ñu war kaa bëri ñoom xam nañ ko te dinañ ko dox incha allah. Mhm. wante jërul ñuy dem ay tour quoi. Mhm. noo gisee wasaare làmb ci làmb. non wasaare làmb maa ngi leen di suivre di suivre seen dox vraiment di suivre yi nii invité yëpp maa ngi koy suivre di ko seetaan te loolu nag vraiment moo di dundal làmb ndax boo defee lu baax rek. ñi mm. ñi sawar laa seetaan te vraiment fi ngeen teg seen tànk bu leen ko mos a tegee ndax ñun amuñu dul làmb te képp ko bëgg làmb da lay bëgg de site boo xamante ne bu ne dox làmb rek ñun ñuy sa kaw ndax ñun amuñu lu làmb te làmb li nga xamante ni wekk na ko wekk na ko si yi dafa bari ñi muy dimbali dafa bari kon nag dañuy ñaan làmb ji ñu koy ñaanal rek fa mu nekkoon ay 2012 ay 2010 xam nga ñu ñaanal mu nekkaat fu ko raw ndax boobu boobu boobu làmb neex na di ña di waxaat rek suma sponsor yi xam nga gën a ñëw. gën a jàppale xam nga euh, mbëri gën a jàppale askanu Sénégal ndax ndax làmb ñi si dund daal bari na daal mbëri dañ siy dund supporter dañ siy dund ñiy jaay xam nga bari na surtout boo xamante ne xam nga ñëpp dañ si suturlu kon boo amee rek da yëg ne am na waaw. kon ñu lay jaajëfal ndax liñ amoon ci waxtu jot. waaw kon ginaaw bi damay sant rek. Mm. di sant suma waa dëkk bu baax baax baax baax baax waa Kayar mun ma Grand Yoff bu baax a baax a baax a baax a baax ñëpp di sant nag sama waa gaale fii nii di ñaanal xam nga sama pap sama papa ji nekkoon rek yàlla jëlee ko fi ñu ngi koy ñaanal baax yàlla may ko gudd fan. non di koy ñaanal yàlla yàlla na ko bu baax a baax di fi ñaanal nag suñu yaay ji fi nekkoon tamit na yàlla xaare àjjana képp ko fi bàyyeekoo rek yàlla ñu ngi la yàlla xaare àjjana suñu yaay ji fi nekk tamit muy mel na ko ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak suñu mag yi fi nekk yëpp ñu leen ñaanal jàmm ñaanal tamit sama booy yi nga xamante ne ñu fi ñoom dañ mi topp sama ginnaaw chaque jour di chaque jour man xam nga maa sant bu baax ñoom Balla ñoom Moussa ñoom Góora xam nga gaa yëpp maa leen bëggee di bëggee sama mag bu baax sama encourage nga xam ne ñooy samay mis samay bagage lu mel ni xam nga sama mag seexu vraiment moom day son suma combat di si jàpp xam nga ay Saliou Ndiaye xam nga ay Makura ay Mbaye Sène xam nga sant sama samay entraîneur ron xam nga ñoom ñëpp ay père ay Midou Mor ay David maa ngi bëggee di bëggee waa Kër Seye tamit xam nga bu baax a baax a baax di bëggee tamit xam nga ay ñoom Tony Tony atu làmb maa ngi koy bëggee bu baax waa atu làmb moom bàyyi ma kenn kenn kenn kenn kenn taxawu nañ ci bu baax ndax jàppale nan ma kon daan naa ci ñoom at ak lu làmb tamit maa leen di bëggee bu baax a baax a baax a baax di sant président ba Alpha xam nga. ginnaaw bi nag maire Kayar Aliou Ndoye sama mag la maa ngi koy sant bu baax gaay yi jàpp nañ ci combat bi ak képp ku yewoo Kayar rek li mu doon mu di bëggee sama 100 pour cent bi xam nga 100 pour cent doon maa ngi bëggee ñëpp bàyyiwuma kenn xam nga di bëggee xam nga waa groupe Zo yëpp maa ngi bëggee gars yi parce que fu fu nekk la nit jóge ñëw ci combat bi sant waa Caaray bu baax Caaray géej rawatina waa Maareen Maareen gi nekk Caaray maa ngi leen di bëggee parce que ñoom gars yi ma gars yi jàpp nañ ci xam nga tout bàyyiwuma kenn yéen tamit maa ngi leen di bëggee wasaare lamb di leen ñaanal jàmm ko sax dàq di leen ñaanal xam nga fépp champion ne rek ngeen am jotu dem fa jëli ko ndax affaire bi du Dakar rek champion yi yaatu nañ quoi. Hmm. champion yi moom na ngeen war ñëpp rek jël leen ndax lii rafetul na nga trop kontaan nañ ci di wax amateur yi na ma xar xaar Libidor mu ngi ñëw incha allah du yàgg. ngeen li nga xamante ni moom la Libidor wax lépp bokk na ci lu nga xamante ni mooy doxal làmb. ndax làmb moom noonu la waaye boo déggee message bi mu lancé waa wasaare làmb nga xam ni yéen la rek parce que yéen suñu mbokk internet di chaque jour ñoo ngi gis commentaire yi ngeen di def dem leen seetal ñu diw dem leen seetal ñu diw dem leen seetal diw comme yéen a ñu doon laaj Libidor Libidor a ngi noonu ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax kontaanee di am tàggoo di tàggoog yéen rek ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo ba ëllëg incha allah ci wasaare làmb ak beneen xew-xewu làmb jërë ngeen jëf.